doy sama sang bi nga xamante tibaari kàlla ya tax ma gën ku ma war a a gën waa Sénégal nuyuwaat naa leen man Awa saajo Ndiaye Awa Sadio Ndiaye kontaan nañ ci yow Awa Sadio Ndiaye mbokk yi xarit yi nag macha allah Awa Sadio Ndiaye ànd ak nag aw katam macha allah mu defar ba mu baax sooda paccax sooda paccax loo wax sooda sa paccax lan la tey def say cristal ay man nga xam ne man rabi cristal laa am man macha allah. maa ngi yow rab. non ñoo bokki rab sañse balaa jekk muy melax melax. muy melax. naa la Oumou Sow. maa ngi lay fay. di kontaan nag euh, di nuyu téléspectateur yëpp. di leen nuyu di leen ziar. Mm-hmm. di nuyu Ngoy. di nuyu aw saajo mi nga xam ne tubaarikàlla dañoo bëggante sama mag ji. di ndaanaan nag kulli fadrin. mën li muy def séeri Sadio Ndiaye. waaw waaw Sadio nee na yow a. waaw tey daal damaa ñëw rek pour jàppale ko. dëgg la waay. kenn moom. kenn du moom dafa mën a taas. waaw waaw su ñëwee di ma aw. Ah. bëggeel la. mu ma sagal ma dooleel ma. su ma soloo day taxaw rek naan ma awa Sadio lii lan la man ko garde la lii nekkite ba à tout à eh waay Samb à tout à l'heure kon yi xarit yi xanaa nag macha allah tey njaago yi dinañ bëgg. tey njaago yi dinañ kontaan. kati njaago ma ca Paris dina bëgg ah macha sama xaritu njaago yi gigi gigi Sarr. waaw ah macha allah. sama waa ji kenn du moom di gi saar sax eh, sama waa ji séeréer la waaye dafa am ay xaritu njaago ñun suñu xaritu njaago yi tey ah waaye nag dañ fi am nag taaliba sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax bi di nag macha allah Michael Njaago mm. ah macha allah Njaago ñu ngi lay dalal ci plateau bu mag bi di Oumou la Marie Diago. suma eh. bi Sow. humour bi affaire bi la de. Oumou Sow laa may suma weer bi. Eh. dama bëgg. sa saag bi Ndiago yi nekk Sénégal ak bitim réew. ndeysaan ñëpp ñu yëngu ñu déglu Marie Ndiago. waaw waaw mi ngi ànd ak Jean. ndeysaan may kontaan si ñëpp. di nuyu waa Sénégal. dëgg la di wax xale yu Sénégal yi ñu toogu fii ñu liggéey. liggéey amul na fii. waaw metti na. xale ah. ñu ngi deewu. dëgg la mari day xëy mu fóotu waaw mu paase mu bale mu raxas dëgg la Jean joxul añ joxul reer joxul ndékki dëgg la nañu toog ñu liggéey ñu liggéey waaw mano nuyu naa ngoy waaw <laughs> ma ziyaare ko ndeysaan kontaan naa si dalal bi ma dalal wallaay naa la si wallaay ndeysaan ngoy caali la woon gis rek laa doon wallaay wallaay wallaay wallaay la bégee nag ndax damaa sëy ci pël yi kon ah a Mbay Mari mu Alsan Mbay mu. Njaago. Njaago Njaago mu sëñ Abdou Karim. ah. mu première dame moom Alsan Mbay. waaw waaw waaw fay. léegi macha allah. laaw la ca caba mu dalagulee Mari Njaago. <laughs> kon nag mbokk yi xarit xanaa rek ñu ibbi nag ak suñu invité. bi mm-hmm. nga xam ne ne macha allah dafa indi ay surprise. ñu bàyyi ko rek mu bégal leen ci umu show nee naa leen seen mbégte rek mooy suñu bànneex macha allah ah ndax télé bi ñuy nuru ba noppi te duñu dajale moo ñu fi dajale ah seen mbégte rek mooy suñu bànneex ndax télé bi dañu bëgg mu wër àdduna ñëpp di ko safoo la ma wax ci jingal bi rek ëpp na am nga gam waaye di nga nga ko daalal Oumy Sow am nga gan waaye dinga ma daalal <laughs> am nga gan waaye dinga ko daalal waay billaay am nga gan waaye dinga ma daalal yey am nga gan waaye dinga ko daalal waaye am nga gan waaye dinga ma daalal

wane lii la yàlla def muy xujjaga yi seeri ama seen moom de lay bégal xoolal jeeg ko njëkkeem gërëm yee ngir mari borom ndooy suuf seeg dex gi daglu leen lii xu jagay jëkkëram am naa dam eey jëkkëram jag mu ko awa asana ma goro yi kii lim ñu defar koy kee ko ko ñett yee doorami xool du jàpp magum timis di ko xas ba mu tëdd fonde fajar saxar mu di ko léemu ba tuddala julli ñun sunu jeeg bi loolu du sa jikko mu bi loolu du sa ma dogal di nga sonn sa fii na loolu foor la war a mel. koo xujja. <laughs> ah xujja li nga ko way am na doole de macha allah a Ama Ama Sène macha allah suñu mbëri. chéri Awa Assane ma ca Allemagne. allah ah chéri Ama Sène goy caali. waaw woy wi rëy na. tubaarkàlla. woy wi jomb ko. wallaay. Hmm? xam nga Awa Sadio mii. wallaay Sadio. yàlla dafa dogal dafa donn li muy def. ndeysaan. Euh, tubaarkàlla pour maire Ndiaye ko jur. wallaay maire waaye Guitan mooy baayam. ndeysaan ku ne xam na ni chef de bu fi nekk rek. Mhm. commencé ko ci Senghor ba Abdou juuf ànd nañu ak baayam. bu ñu daan génn baayam ay yor xiin gi jiitu. mu moromanteeg Doudou Ndiaye Rose. Mhm. alaaj nag bataa ñoom baaba ni yal na leen yàlla yërëm te yeexal moom lii mu wax rek moo am ndaanaan la tey invité nga ndaanaan tubaarkàlla. waaw waaw ah. Mhm. macha allah ndaanaan invité na ndaanaan. Mhm. waaye macha allah ngoy caa li nga mhm. ko waxal nii cuune mënu ko. wallaay dëgg bu rafet ñëw tamit. toj seen bi. macha allah fii daal mhm. wàcc na ba zéro. wallaay wallaay ba tax na macha allah euh, taasu bi maanaam euh, naka la la dikki dafa jékki-jékki ñëw ci yow wala lan la da ko doon lan la. omi fi nga wokk foofoo xasan. taalibe sëñ Fàllu bi fi nga wokk. foofoo xasan. léegi dama ni yaay xaas-xaas hmm. baay xaas-xaas bu doon juddoo day wokkatu ba mu dagg dëggal li <laughs> ñu ni mbott di jur ginax c'est hmm. <laughs> waaye mbanaat du nàmpal doomam da koy xool mu suur dëgg la sa yaay nga nuru nga ne yëkkat <laughs> xoolaatal sa bopp dëgg la dama koo doon hmm. kuy sa baay cana cana amat seen bu borom daaray alquran mu ànd ak équipe nationale. Mm. ànd ak président bu fi nekk rek ànd naa moom. waaw yàlla na xippee àjjana. amiin yaakaar boo taasuwul dañ lay laaj lu tax. dëgg la waay man bi ma nekkee tuut lay ànd sama yaay. du taasu yaay tubéy doo yàq na ngay defar. yaay tubéy mm. waaw. na loolu riis na ne doon ci demal yaay ah. ni daa ngay defar. Eh, eh, eh. jooju tànnal ma sama baay bii alaaji jaraaseen sama baay surtout sëñ sëñ Ibrahima Gueye ki ma yaa yow a jaañ maali bay manga jaxeeri manga ali ba jigéen boor ama sëñ jeeyaay baayam fayay yaayam awa Sadio doo taasu awa Sadio doo taasu du ngeen ma man du ma taasu awa doo taasu awa Sadio doo taasu xoolal alaaji cala seen Ibu la bokkal baay moom la bokkal yaay baayu cala mbokkum ndeyum Siga Seyaan mi nii jooy te noppeegunu mbokkum ndeyum mi seen waaye mbokkum ndeyum Màgga Seen ak Kumba Seen ak a neex a way ni ko biram ma ca séeréer Maali Faal ma dee jabaas ak a neex way ni ko yaayu Njaaya pour Njaay pour Njaay sala sige jiey maa ko da biran njaay xoolal ma njaay ja maag la ma njaay ba ja duume mariama biran njaay awa sadio xoolal bu ma déggatee baax yaay naa gesu man la nu woo boo déggatee baax yaay na nga def yow la nu woo xoolal ajaratu première njaay weex njaay la bokkal yaay àjjanay nelaw yaayu faatu yaayu ndey aram yaayu yaasin seen yaayu màgga seen yaayu ummi seen yaayu yaasin yaayu ummi seen yaayu màgga seen mooy yaayu njaaya taaw taaw bi bëgg yaayam te yaram yi rakkam moo ñu teral xool leen Yaram doom ju mu jur lay doon waaye première jaay doom ju mu jur lay doon. nee leen ku man gore yaay daa teral baay baay daa muñal baay gaay aju rek ko pour jaay sama yaay déglu leen nii ah ne leen ku mën sa ndeye tam ku mënul dara sa ndeye tam ku mën sa ndeye tam ku waaye yéen jàmm la lii la waaw ma ne ko lii mbaa jàmm la. loolu daa fees lii. xam nga doom ji ci màgg gërëm sa ndey mbaa nga xaram. ba mu yàgg a ko dikkal. waaw waaw. non fii wàcc man awa Sadio damaa màgg gërëm sama ndey waaye duma ko xarab. billaay awa. yow ba sëy jotee dafa sëy. waaw. fii toj na. waaw ko naan ko léere. bi dem Guèye Kéwé yaay awa Dia. nit ku baax. day am kóllëre. <laughs> neex a way Mor Thiam dafa teral yaayam waaye dafa teral baayam waa Sénégal déglu lii lii Mor Thiam mi may jiin daal di ko way mi xam na ko ne leen ko ku ma sagal sëy ca ga ci buur xoolal ki defar buur waaye ki yëngal buur yeer yaayam a ko ñaanal baayam ñaanal ko kenn mënu ci dara Merci suus. waaw bari njaago lii baa njaago daal ñu suus fii. gars suus bi lañ bëgg mu ñëwaat ci mari njaago. waaw na mari njaago yow suusal leen mari njaago. gars yi ci mari njaago. bi moom xajul ci réew mi bàyyi ko laay wër. bàyyi ba élection yi passé nga suus ndax suñu te da ngay suus Karim di tëll léegi ah da seet lii rek waaw baax na. <laughs> suuf bi day yëngal réew suuf bi yëngal na réew mi waaye séeri Sadio Ndiaye mu baax mi macha allah mbokku téléspectateurs yi. Mm. naa ko rek xanaa li ñu jox neex na leen. waaw waaw ñu ñëw ànd ak macha allah ki nga xam ne ne dafa doonu taas. mu nekk ci deretam nag macha allah wax na ko. jëfee na ko nag wane na ko ay musicien mi wane nañ ko mm-hmm. macha allah. waaye sëñ-sëñ bi dem géej kéwé yaay awa jaay. kooku sama rek la maa ci xeer ak maa ngaar calaa. Mm-hmm. moom la ñu duppee sama micro bi calaa. waaye calaa damaa bëgg rek nga may ma tey. Mm-hmm. ah ci sëñ-sëñ kaay ma ko suusal ji. waaw. kooku Thiala lañ ko duppee. Thiala waaw salaamaaleykum àdduna waaw waaw. salaamaaleykum Oumou Sow. Mbaye Dieye Faye nga bokkal Elie Diagne nga bokkal. waaw pour la ardo borom nag ak meey. nga yow ba nga baaxee ba tey bonoo. bilaay dafa loo xam ne ma guddal damay gàttal rek. dëgg ndax temps bee xat. wallaay ndax damay nuyu waa Tali tari karo samay xarit samay am di jàmm samay géer ah, waaw di nuyu sama soxna nag soxna mbenn sama aaw buuru këram boobu yaay baay yaay Mouhamed eh, di nuyu sama waa kër ñoom penn ñëpp maa leen di nuyu déggal loolu nuyu nag ah. waaw dama ko war a tëggal la 17 dañ koy maye Aysatu moom Aysatu boobu ah. borom yaraax waaw taaliba Baye Niass loo bu laa ko bëgg may <laughs> am na kooku kooku waaye am na daang daang xoolal li xale yëpp seng seng bas faya ngi ne le tabaarkalla sama dëkk bi de chéri Sadio paamaar taxaw ne le mbaay sama taaw bu góor gi bàkkal na ndigi ma ba calan pare tabaarkalla waaw waaw Njaay maa menga saago ña téele réew masha Allah bàyyi buso bàyyi sàmma ndox waaw saajo sa baay dégg dégg mbokkum ndayum papalaam dégg naa ko muy taal. buuba. waaw buuba kii sama doomu xol la. ah mi ngi yëngal mooy ngi toj réew mi. toj na réew mi de. xam naa boo sooda paccax ba pare di nga ko ci teg. waaw day ñëw. tubaarikàlla macha allah buuba ngi. buuba jëmbal bu buuba jëmbee pare ñu dem ci sooda paccax. sooda paccax. paccax bi. ko gis sax. boole fi mu toll nii boo boole waatee xaw ma fu jëm mbokk téléspectateur. Oumy Sow. ah Soda Paccax. sama doomi ndey sama xarit. sama gaa yaa ngi teg saa yi ngoy caali. teg gerte yi. tibaari kàlla macha allah bañ a bu tàng di seetaan Omar. Seydou Omar Ray ma jaaga. bëgg ma sagal ma. Fatim Ngor. la téye. kii ni ma ko bëggee ci sama xol bi sax dama yéem nu ko bëggee ci sama xol bi sax dama yéem ni ma ko bëggee man ci sama xol bi sax man dama yéem ii dooma laaj ku mu ee xoolal dama laaj lumu Amadou Ba Seyeen Njaay bu dem jëme nga tegaay góor dëggu bàyyi laal la faal Farba Yasin dawul mi jimbul ise jeey fatim pendak lak sukaabe ngooñi jeey demel dee jalaw demel fa njugu demel samba yaay ya faal bay faal bi waaye yow bay faal bi daal fi mu toll nii tax na nga bay faal bi mon cher la faal bay faal bay faal la ii am di Xaadim Fall Baay Fall la Abdou Sakor Fall Baay Fall la mbir feeñ na ah. ana ku ko feeñal Maam Cheikh Rafal lam baba li muridiina ma jege Demba tubaarikàlla koo koy sama waaj fu ma jëm moom foog ko. xoolal Marie nee lu tax waxoo Marie Ndiago Baye Fall. Marie Ndiago Baye Fall yaay Fall la. eh Marie Ndiago. yaay Fall la. Marie Ndiago mi yaay Fall la. Marie Ndiago mi yaay Fall la. yaay Fall la. Marie Oumy Sow kenn mësul gis lii. ah suñu xol sedd na ma daal boo leen duggee ci Baye sama xol bi yëpp day dem ci Chérif Abdourahmane Sall ci laa la dëgg ci ñu naaru saan ndeysaan moom sama xol dafa dem ci sama day dem taalibe sëñ xaadim bi soxna Nogay ci Mor Thiam ndeysaan Mor Thiam te Mor mbokk man may bàjjanam sa sama doom la tubaarkàlla Maria sa may sa biige may sa biige maar moom allah mm-hmm. fexe na ba marqué empreinte wallaay wallaay la fekk taasu waaye fexe na ba jox ko valeur am mm-hmm. bu ko neexee li mu ne maay directeur tubaarkàlla mm-hmm. am ndaw ne Euh, my euh, son excellence incoming incoming Alsaan Mbaye ni maay griot de VIP nit war naa fexe lu mu nekk rek. dëgg la marqué ca empreinte am. tey umu mi tubaarkàlla fecckat la dégg ngeen ko sànq rek. li <laughs> mu wax fii xam nga nit. na fexe ba. monte boppam ak boppam am fu ko teg. Mor Thiam moom nag tubaarkàlla mënumaa uh-huh. toog fii di nam nga wax ko wax juree ji nga ko wax. ndeysaan ma sànni sama kàddu tubaarkàlla ummi. sama xarit la. waaw way na ko baax. way na ko baax lu ne. ndeysaan bëgg ma lu muy tëgg maa ngi ne ci ginnaawam. ndeysaan ndeysaan mu bëgg ma sagal ma dugal ma kër mm. ndeyam. dëgg la waay dugal ma kër baayam. Mm. Ah. jabaram ab sa gëy. Mm-hmm. jéeg bi yàqul suñu kër. dëgg bi togg ci mën a yëkk ci booli. ndeysaan. yaay càccoo. Mm. ndeysaan. moor. Mm-hmm. kuy sama mbokk sax da koo teral. Mm-hmm. bëgg ma barki dem bi muy def anniversaire am. fameem rek la woo. waaye daf ma ne kër téléphone. damaa wasaaja foo ne. Ah. ndeysaan. te daf li kóllëre bii mu ko way mag moor danoo yàgg xewul ma ànd ak moom Sadio sama jëkkër moo ma booleeg moom moor mhm. yàgg am personnalité mhm. yàgg di moor bu ñëwaat maay téye xaalis moor ay yéreem maay denc mhm. buñ demee ba ñëw lu muy def ci sama wet lay toog moor fàttewul dara. nit ku baax la moor naaqul. nit ku bëri jom la. neewul Awa Sadio borom 24 poudre yi fan la jógee. dégg nga lii. 24 <laughs> lan. poudre libéré rousa. kon man dinaa la joxaat yeneen ñaari poudre muy 26. kon. may mën a nduur fay joxaat la yeneen ñetti poudre. kenn moor joor ndare baaba dolli ko ñaari poudre. ndare parce que ndare. sama yaay ndare wala moo génn day saraxe ñaari mag. puudar doog a génn ndara baaba dool la ñaari puudar man ko moor bu baaxoon te jabaram baaxul këram ndeysaan dëgg la dëgg la dolli ci suuf ndeysaan dëgg la waay ba pare nag taxaw mm. ni awa Sadio mooy sama géwël waaye lii lan la ci nit man kenn mënu ci dara warkàlla ndax di ko way fu ma dem moor laay way dëgg la waay nit ku baax la ay moor waay moor sax dina ñëw ci plateau moor day ñëw moor day ñëw ndax dafa busy woon waaw Marie Ndiago lan bëgg rek laaj deux mots macha allah Marie Ndiago. Mhm. ñu gis sa tey euh, nga ñëw nekk euh, ndaanaan nekk artiste. macha allah di def humour ah Marie Ndiago bi tey inspiration bi naka la la duggee. nga jànguma français. ci làkku rek. waaw ma ni ma ngi tëdd guddi. Mhm. may joué samay théâtre. Mhm. si Leyti Fall. ma ñëwaat si Ibra ma dem sama kër ma dugg guddi. Mhm, mhm. ma xalaat su ma ne man Mari Njaago mi ngi suma xel. dëgg la naa ko exploité. Mhm. ma xool yàlla baax na. dëgg la ndeysaan. ma daana ànd ak suma benn xarit ñu dem si école. ndeysaan may joué foofu ñu may filme mu dugal si TikTok dugal YouTube. mais damay toog sama néeg sax ma war a lekk maa ngi si suma seetu may def samay personnage si Njaago. te njaago du tooñu mhm. njaago xam lu fenu njaago liggéeyi rekk mu daanu doole loolu rekk la xam mhm. ma ne njaago suñu fàll mu alsaan mbay maane mbaay may nuyu waa plateau bi waat mhm. ah, xii naan tamit euh, xeexu njaago du jeex njaago lan moo tax njaago ñu naan xeexu njaago du jeex lu waral loolu mari njaago eh, laaj nga laaj wu mu xóotu mm. <laughs> ndax laaj mu xóotu njaago du tooñu nga tooñu benn njaago tooñu nga fukk njaago moo tax xeexu njaago ah! du jeexu oh, dina jëlu mbaamu bi mu tegu ko fële mu ñëw mu song la mu woo bàjjanu papa ndijaay umpaañu lépp léeru mu fero mu ñëw waaw waaw ah macha nee na njaago des nga xuloog moom mhm. ba fàtte ba affaire yi am at mhm. da ngay jékki-jékki rek dégg ku la song ci mbedd mi lu xew waaw lu xew mooy tooñu bi nga ko tooñu moom gis na rek day déparé xeexu bi ndax du ah, tooñu. ay la ay la la. Ngoy mës nga joteeg njaago. mu nga joteeg njaago. yàlla tere. musuma demee Grand Yoff naan. Hmm. di di leen tooñ. naan leen naga lank naa au biir ca géew ba. Hmm. dootuma ko defati. <laughs> lu la def. koj ma. la wax njaago. waxuma dara. Eh, grand yoofu yow eh. dugg nga si biir njaago yi waaw foofu romb nga nga wax rek njaago bu tuuti mu ngi raam mu dalu sa kaw romb nga nga waxu salaamaaleykum njaago mi ngi raam si yow wax na maaleykum salaam njaago du tooñu de yoofu dafa munu tooñ eh. ah, bàyyi tooñu njaago mari njaago du tooñu léegi na woo Jean ana ah, Jean. moom mi ngi doxaane rek man ma liggéey. ana moom ana Jean mu doxaane. ma ñëw. waaw. waaw Jean moom dafa doxaan rek doxaan. doxaan day doxaan ah. ah. ma ne sonn na de. est-ce que daf la bëgg a utal wujju. njaago du wuje. Hmm. njaago du wuje njaago. Ah. ma ne du ma wuje ma wuje rek ma door ma matt xottu taat. <laughs> bu ko waxati mari. waaw waaw su ma nijaay mi ngi fii si Casamance. Hmm. mu ah, dugal ko si tuur bi rek mu téye bagaasu góoru bi. mu takk ko mu wéy koŋul comme sayu mbopp. njaago du wujje kon. Eh, njaago bu gulu boobu de doomu bu ndaw bi sax day wujje mu xeer foofu. Ah, ah waaw. mari mën na taasu est eh, taasu bi sans wax ne mu jàngal ma boobu temps sans mu wax xaaral maa ngi ñëw ma demoo Grand Yoff te ñëw. eh waay Samba. non Marie Ndiago ngi yëngal jamono. waaw amoo. waaw dafa ñëw def déguisement am. Mm-hmm. def robe ndoketam def ci ay feram. waaw waaw daal lii nag. dàll yi def création. wala njaago yi moom dàll yi la ñuy sol. waaw ñun suñu feetu. 31 hmm. 24. waaw ñun dañu feetu feetu ñu ngànk géej. waaw moo taxu ma defu suma robu. ma def suma daal la ma def suma gis nga suma jaramu xonk mu amu ñetti petaaw hmm. waaw ma takk suma seenu or ma takk suma jaljali bii nga xamante ne su suma maamu ma doon foofu ma jënd suma saagu vingt mille ana ana Jean doo ko woo. ah man Jean moo ngi ko woo moom dafa taxawaalu mu ngi dugg si ndakaaru njaay bi dugg ruq jaxaayu rek. Mm. bi ngay ñëw ban bu boisson nga indaale ban boisson pour teralee ñu ko. hee xanaa ma dem mu ma wax Jean mu demoo si euh, Grand Yoff moo indi bii ñu. sum na indi nga. Ah, boobu amoon na Jean dina indi lépp xam naa moom la lijjanti. ana Jean moom jëla micro bee yow li la lu dul. doo dem fii ngay taxaw ah, mm-hmm. fii laay yam. fii laay desaan gis nga Marie. Ah, gis nga sa yóbbante bi nga yóbbantewul. xam nga lan moo ci mujj metti mbaam xuux yi. ma ni xuux yi. Marie waxuma yee de mbaam xuux yi nga ma yóbbante. fan dégg na yow ah yaa ngi may dégg. moom laa bëgg mbaam xuux yi. yëpp dee nañu. suma sa mbaam yi yow. yëpp a sama fóotu ma bale ma paase. yow joxu la añu joxu réer joxul ndékki nga wax eh, ah. ah, suma mbaamu ah, dee na ah yaa ko doxaane. ah mbaam. sans suma mbaamu yaa ko doxaane. waaw mbaamu xuuxu moom mari fu ñu koy doxaane bu soobee yàlla. yaa jaayu xaalis nga waxu mbaamu dafa dee deewulu mbaamu gudd na bakkan ah. ah hey hey yow. déet hmm. mari sa mbaam mii de moom ren gontuut moom. Jean su ma mbaam wala su ma xaalis ma yóbbu la su ma nijaay mu takk sa affaire wu. sama affaire ya. boobu ci suuf bu ko takkee dina ko tekki rek. man dina ko takk ndax yaa joxoon bu ko takkee dina ma fii noonu fi takk tekki ko mari. mbaam yi dee na lu mu si man. bu ni ma xëyee kay xam nga li ma la wax mbaam yi dee na mbaam yi dee na xam nga lan la. boo leen di dëjël nga dëjël leen boo leen mënta dëjël nga xool noo def ak ñoom nag. waaw nga def ko si oto nga indil ma ak biiñu bi. nga indil ma nga indil ma nga jëlee ko Grand Yoff nga indil ma si télé TV bii bii. set TV ah, ah gis nga yow nag ko yëpp waa set TV nga. set TV nga indi ko fii. boo ko fa yóbboo dina noqu sa xon ba nga yaakaar nanoo dof. dama dégg nga pikir mbaamu mbaamu mu jóg dox yaa ko doxaane. yow nga doxaane suma mbaam. yow oh mari man xanaa bu may doxaan dinaa yóbbu sàngara euh, kii wala kii mbaam xuux noo koy doxaane. ah dem Grand Yoff. nga ma ndéy. Ah, ak euh, si si fële may wuti tiir Casamance. waa gis nga ah, Casamance ak. mu ni maa sa tiyam yëpp day ay sources rek damay dee. mbaali nga métti suma ma fóotu ma paase. waaw saa joxuma suma xaalis de saa joxuma suma xaalis. waaw man yoruma bakkanu mbaali dama mu takk sa koy bi. Ah, ah, gis nga bari ah, gis nga uh, loolu moom bu ci bu ci naree yegg moom bu soobee yàlla moom jàmm la mari mari seen nijaay nijaayam <laughs> woo ko mu ñëw nga problème jox ma sama xaalis ah gis nga yow nag danga maa bëgg a jaxase oh, waa Sept TV man Jean yëkkati na suma tension sa tension bi bu yëkkatee nag jéemal mu wàcc mari mu tuddeewul mu ngi jaay mu doxaan doxaan doxaan guddi bëccëg doxaan guddi guddi bëccëg doxaan guddi joxul lekk joxul ah, naan joxul mari mani bu sooba yàlla nit sax bu waree dee insha allah moom day faatu mm-hmm. waxuma la ak ay mbaam nag Jean su ma xaalis ma dajale ma la wax jëndal ma ceenu or yow jëndul boobu su ma nijaay mu ma ceenu or waaw huit garaamu mi ngi ma takk. waaw Jean bul bàyyi nga dem Casamance nga jaay suma eh, mbaam lekk ko. nga ñëw Grand Yoff nga jaay mbaam nga lekk ko nga doxaanu doxaan yow Jean man dama sama nijaay mu ah, fatt la. waaw gis nga da jël mbaam yi teg leen foo tegul kenn. loolu jox nag pour mu <laughs> jëflante ko ak ñoom. waaw ñu xool nun def ak moom rek. mbaamu bi mooy suma alal la. suma alal moo tax it na léegi nag ñu li ngay investir ci mbaam yi def ko eh. ci ñun rek noppalu. Eh. moo gën mm, mm. mbaam yi dee na kay. Mm, moo gën mu ma sonal ak wax nag ay sama nijaay fii. Eh, dina def sa lii bu defee sama lii ma dem feneen na dundi sama lii rek loolu kese la. bu ma sonal ak ay wax nag. maam li nga yow nga bugg a xaalis nga yow du liggéey. Ah, yow nga toogu man ma bale ma paase man ma toogu guddi jot ma tëdd ah, yow du joxu ma la xaalis dama ni bu soobee yàlla nga jël xaalis nga doxaan bu fekkee ni sa mbaam yi moo tax nga bëgg a yóbbu sama aro bi incha allah du dem dinaa dem su ma nijaay mu ngi si tuuru dama la koy wax de ma jóge fii rek ma woo su ma nijaay waaye wool sa maam eh. taxut dem de eh. mani ah. euh, sécurisation euh, de la de la kii euh, dinaa mu man moom laa ko def du dem wala xamoo loolu na yow. Eh, eh, yow. tey laa gën a baax yow. ma ne bëggatul yow. doo mës a bëgg. Ah. yow benn benn bëgg nga amoon mbaam yi nga ko jox. Oh. yow koo ni bëggati nga ko rek uuxu dëgg. Hmm. bu soobee yàlla maa la ko. Sadio attel ñii. Hmm. Ah. attel jëkkër ak jabar ci mbaam ah. ma ne suba ma dimbi ah macha allah di ko may kati njaaba fële ca Paris waaw la lii kenn mësul gis. wallaay. xam nga lu ma leen di àtte. waaw. alaaji papa Diop. baaxkat bi. Ah, waaw bi. alaaji Papa Diop. bi. baaxkat bi. alaaji Papa Diop. bi. waaw waaw. bi. alaaji Papa Diop. alaaji Papa Marie Ndiago. léegi oh, man Jean jeexalu na suma xolu. ki leen di àtte jeexalu suma xolu. suma kon kon ma bañ a dem ci Alaaji Papa Diop bi ñëwaat. waaw waaw léegi koy àtte Marie. maa ko naan ndaga lànk naa OBR ndaga piso. ndaga lànk naa OBR ndaga piso. te ndaga lànk naa OBR ndaga piso. ey ndaga lànk naa OBR ndaga piso. way yaay ndaga lànk naa OBR ndaga piso. ey ndaga lànk naa OBR ndaga piso. Tiso jagalante na Ober Njaga Tiso toj na fi ah ma uh, ne xaaral ma woowu suma xarit mu bongo. waaw mu xool mu defar suma xol suma xol genre miti na miti na mi ngi dàgg. ah tey moom ma ne dama bëgg genre. bëgg maam bi war naa feeñ mu mer na sax mu dem suma xol mi ngi metti. maam bi maam bi dina feeñ mbaa. waaw waaw dina feeñ mbaa mu de. lan moo xew fii. eh yow yow ak sa mbaxane bi yow bandi yow nga dugal genre mu nga wuti gel rek. tàmm nga fu ma dem fu ma dem rek ñu woo ma ndax yow. yow xanaa mënoo bàyyi sa xuloo bi ngay xuloo si dëkk bi. man ni du ma bàyyi boobu. yow nga bëgg a jël mbaam mi teg leen foo tegul nit ñi pour lan. ah, ah man ma liggéey ma jaay suma maamu mooy suma alalu suma ceenu oor mi ngi ma takk suma baatu. Eh, man jommi naa man jommi naa di ba jommi naa waaye man man man man njaago bi nu ma ko war a def. yow xamul lu defu man. yow di nga ko xamu nga jël suma xaalis yow sax ngeen dugg si àll bi ngeen doxaanu doxaan dinaa wax suma nijaay mu takk seenu bagage mu dagg ko. kan man yow man Ndiaye ma man man yéen ñaar. yéen Cheikh Feera yére baax. yow eh, yow yow nga ne man nag maa romb may doxaan ma jaay sa mbaam doxaanee ko. Jean mu ngi jaay nga ànd ak moom nga wutal ko gell si ruq jaxaay bi. man a gis na yow. Mhm. boobu mi ngi solo jumbax bu ndaw. dëgg la kan man. waaw yow nga yóbbu Jean nga wutal ko gell. waa léegi xam la. yéen ñaar ñii seen xuloo sax léegi laa bëgg laa laa war a génn léegi comme que boo demee ba di ma si tuumaal sama sama jabar sama jabar ak may dégg. xuloo bi waxal li am ma ni xuloo bi. yow mën a see génn xam nga la moo tax. Ah. Ah, gis nga ci boo ko xoolee kanamu ngoo gi dangay xam ni nitu fitna la. waaw loolu am na njaago fitna la. damay dégg ñu naan xeexu njaago du jeex. bii nag dina jeex de bu soobee yàlla incha allah dina ci génn ba seet wet. su ma xeex du jeex ak yow surtout yow yow sa kanam bu mu mu mel ne ma yu wax sama ah, nijaay mu takk sa bagage mu dagg ko. yow mu fàttali la nga dem xam du dikk. mani ah, xanaa mu takkal kii. Mariana Touré. baax na tuur yi foofu laa yóbbu. ca Casamance. tuur la ak Grand Yoff. ma ni tuur yi si boppam nan kan la ma jóg si tuuru bi. mari yóbbu si tuur bi yow yow. man ma ñëw pour àtte nga yóbbu si suuf. mari mari léegi nag balaa nga bàyyi si tuur yi nag ma jaar nii. foofu si kër bi mu fekk la foofu. si kër bi si kër bi mu fekk la fa mu wax la maa ngi nii bii eh, ma eh, ah. Eh, laay la problème yi démarré na nag. xanaa tuur yi moom ay muus nit. waa léegi waa nañ ko waxtaanee. ah bu ñu yóbboo si tuur yi. nekk si dëkk bi di wër yóbboo si tuur yi yow. mbaam mi neef ngeen ko dugal ba pare. ah mbaam mi dee na. kay mbaam bu deewul mbaam dafa gudd ba kanam mbaam deewul. mbaam di lu mu gudd bakkan bakkan léegi nag yow xanaa waxoon mbaam yi nga ma dénk ci say jamonoy maam la dund nañ ay siècle waaw waroonoo génn àdduna ñoom génn ñu àdduna yow nga jaay boobu nga doxaane si yi déeneen waaw léegi déglu ma alafu waxu na la mu jàppale Cheikh Fera yéen a baax yéen ñaar yéen yamu si ma leen xam naa ni bu sooba yàlla inshallah foofu foofu moom duñ fa yegg. waaw waaw damaa xam ni. dem leen génne ah, mbaam yi rek ñëpp nekk ci. non mbaam yi dugg na pare yi dootu génn def. waaw. dee na c'est fini. léegi xam nga nu ñuy ah, def. man léegi Mari Ndiago. Mari Ndiago dama lay woyal léegi su ma la woyalee di nga ma baal xanaa. ndoguma. ah, ah ma sol ko rek ma sol ko ba xam. ma woyal. maa njaago ñëw na maa njaago ñëw na maa njaago ñëw na maa njaago ñëw na ma njaago ñëw na yee ma njaago ñëw na xol ba sedd na ndeysaan ay ay ndeysaan ma njaago ñëw na ma njaago ñëw na xol ba sedd na ah Marie day baal ba loolu génne wu la foofu ah pareegu nee na kontaanagul dolli ko ay Marie Jean nga sukk fii nga baalu ak yow ma baalu la ma njaago ñëw mari eh eh eh eh eh eh yow nag loo dugg dugg xam nga lan gis nga yéen sax yéen man na ngeen maa jaaxal damaa xam ni yéen yéen a tal ay ambiance. yow Jean man baalu yow de. déglu nga waxu. baal nga ma man damaa xam ni. ñu tuuti tuuti. Ah, eh, Marie ay waaye xeexu jaago kañ lay jeex. waaye doole ma jàppale ngeen wax may xeexu jaago kañ ma. xeexu njaago du jeex déglu ma. tooñu nga benn njaago fukk njaago mu dalu sa kaw. Ah, xam nga affaire bi la. lu wax ma léegi lan nga bëgg pour nga baal ma. ay mbaamam lay laaj. waa léegi ay mbaam lay laaj nee nañ ko gisuñu ay mbaam léegi nee nañu. mbaam it léegi xam nga ni ñuy def waxal loo bëgg ma def ko rek nga baal. ma ne baaluñu yow. ak li nga fi fecc yëpp yow Marie doo baal kii. su ma nekk si foofu. léegi moom li mu la woyoon dellool ko ko léegi. na ma joxo suma xaalis ma delloo. ah te mu woyal la moom ba pare. kon kay bu ñu toppati si dara mu fay ma ma joxo ko. Ah, Marie xam waaw mu gis nga yow Marie mii ah dañ koo war a wax ah, réew mi fi mu toll nii. munuñu am problème mu dund ko normal. ñu yokk yëf yi lu wér. lekk bu suur. Mhm. naanatuñ bay nelaw. waaw. nga ñëw fii dina laaj ay mbaam xuux. moo tax ma jógu gis nga man mbaam xuux yooyu bu ma ko amoon sax. Hmm. Euh, ba jaay ko bu soobee yàlla ci gaal yi booy di jël di dem génn réew mi. laay def. Hmm. Hmm. Ah, ma yaaka daay doxaan. maa njaago Jean ma daanu fii nga fay ma su ma njaago. boo ak su mbaamu saa nga bàyyi nga tooñ mari njaago boo fi daanoo. njaago yow nga def ma xaalis. daanu fi daanu boo fi daanoo. gis nga monument de la renaissance bee. yaa koy gën a jubadi yow. Euh, nii waa léegi Jean. yow Jean loolu noppi nii xam nga bokk ma ni njaaw nga. léegi dama bëgg rek ñu waxtaane ko. li waykat bi naan dama bëgg rek ñu waxtaane ko rek. kase ah, moytu loolu lukki si. du ma ko lukki maa ngi mu ngi toog. waaw du ko lukki ah. léegi dama bëgg. waaw yow xam ne bokk.